la chronique People. salaamaaleykum équipe matinale dal nak nag ci sen revue de presse people tay nak dañuy dooree nak ak soirée ba nga xamanteni ni mo amone ci Grand Théâtre samedi bi Kako ko teug nak nek Titi ak wa Bari Bagage waye nak mom def lu dul wuy album bi nga xamanteni ni mo bees tak tudd namante le am nak lu tollu ci sept titres mom nak mom la bégalee ay sam ak ñi nga xamanteni ni ñoo teewoon fofu noonu ngir soutenir ko ci journée wam bobu noonu waye nak mom def lu dul sañse ba jekk entrée wam nak mom ba tey gars moom la ñuy waxtaanee ndax robe princesse bu bleu la def traîne ba naka moom foo ko àpp rek weesu na ko daa def naka benn perruque greffage blonde boo xamante ne nii daanaka àgg na sax ci ay genou ma moom mii di Titi nga xamante ne nii woy kenn dàqu ko ko fii ci Sénégal moom daal ndeke jàmbaar la ndax bégal na ñëpp ñi nga xamante ne nii woon nañu foofu noonu ñu ñëw rek ci ki nga xam ni mooy DJ Arafat gannaaw ba mu gaañoo nag ki nga xam ni mooy fiancéem di Carmen Sama moom nag dafa bëggoon ñàkk bakkanam ba tax Nouvelle waaye nag buñ ci jàppul woon heure bi fekk ji na ki nga xamante ne ni mooy DJ Arafat waaye nag ki nga xamante ne ni mooy Davido moom nag wax na ni dina jàppale famille bi bu baax ndax ba muy mujjee nag def répétition ak ki nga xam ni mooy DJ Arafat waxoon na ko ni man ak yow daal ku ci njëkk a génn àddina na toppatoo famille ka ca des moom nag waat na ni lii dina ko def dina soutenir ki nga xamante ne ni mooy Carmen Sama di yaayu doomu ki nga xamante ne ni mooy DJ Arafat te moom mi sax lu tax mu bëggoon a def boobu ju ñaaw ndax nee na daal ki nga xamante ne ni mooy yaayu Dj Arafat Tina Glamour moom da koo génnee nag ci affaire u dëj bi yëpp moo tax mu sentir ne dal moom ñàkk na lool koo xamante ne nii xamul fu mu koy jëleetee ñu ñëw nag ci ki nga xam ne ni mooy Britney Spears moom nag jamono ji dafa def benn scandale boo xamante ne nii wax ji yëpp nag ay dàll dàll daal di publier ci page Instagram moom waaye daal ya nag li nga xamante ne nii mooy deru jaan lañu ko defaree looloo tax fan si merci loola mu yokk ci rek dañ koo commenté di ko xamal rek ni jamono ji am na ñoo xamante ne ni bu ñu añee du ñu reer bu ñu reeree it du ñu ndékki yow ngay jënd ay dàll six cent ak animaux yoo xamante ne ni ay bakkan la ñu yor waaye mu xamle rek ni képp koo xamante ni daal da nga am sa alal kenn du la wax noo koy jaayee wala noo koy dépensoo dàll yi nag moo ngi nii mosuma koo sol dama ko exposé sama néeg te 2013 laa ko jënd ba tax ñenn ci fansa mi nag mere ko lool ñu ñëw ci ki nga xam ni mooy Katy Perry moom nag dañu ko accusé waat accusé deuxième fois ci harcèlement sexuel Té ki ko njëkkoon a accusé nag ci atum 2010 la won ci benn clip bo xamante ni Teenager Dream la tudd mom mu ko doon tourner waye kenn ci ay fecikatam katam nak moko accusé ni dal da ko doon jéem sakku waye jamono ji nak mom amna na ñaari accusation yo xamante ni harcèlement sexuel la da leen di woo tey di leen proposer lu ñaaw lool ci goor ñi lañ ko xamé won nak waye Katy Perry dal da melni mod mode la ko def mu nekkoon seen revue de presse bu bés bi ma leen di jox dig dajé ba suba